Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, c'est un candidat confiant de la coalition Benno Bokk Yakaar que je m'adresse à vous ce soir. Je vous ai écouté et entendu lors de mes multiples visites à l'intérieur du pays. Je veux être le président de la jeunesse pour lui donner de nouvelles raisons d'espérer. Chaque jeune Sénégalais a droit à une formation de qualité pour servir son pays. Je serai le président de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Je veux que chaque Sénégalais trouve un logement décent dans un cadre de vie sain. Je veux que chaque Sénégalais bénéficie de soins de santé de qualité. Je veux que chaque famille ressente une nette amélioration de son pouvoir d'achat. Je veux que la richesse nationale profite à chacun et à tous dans un climat de paix, de stabilité et de concorde. Chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je m'engage à consolider nos acquis, à protéger et à promouvoir nos valeurs, à approfondir la démocratie. Je m'engage à conduire les réformes nécessaires pour une administration publique encore plus performante. Nous sommes un peuple hospitalier et solidaire. J'ai la responsabilité, avec vous, de consolider cette longue tradition dans une nation toujours rayonnante à travers le monde. En cette période de carême et de ramadan, puisse le Tout-Puissant répandre ses bienfaits et sa grâce sur notre cher Sénégal. mbokki Sénégal ñi nekk fii ak bitim réew man amadouba Ba candidat pour coalition Benno Bokk Yaakaar maa fas yéene ñëw waxtaan ak yéen ci li ñu bokk muy Sénégal di ñaan yàlla mu dolli ñu jàmm dolli ñu jàmm ju mot sëkk juróomi at yi di ñëw nag ndaw ñi moom mooy doon sama priorité ci wàllu njàng surtout ci wàllu xëy dinañu fexe ba doomu Sénégal lim bu takkoo takku mën a dund ci réew mi am fii xëy jigéen ñi nag mënuñu leen fàtte banque bi nga xam ne am nañu yéene taxawal ko fii ñetti weer dina taxaw ci wàllu financement lañ daan dooleel jigéen ñi dinañ ko ful ba mu gën a sakkan mag ñi dañ leen war a jàppale war leen a suturaal doomu Sénégal bu nekk boo demee ba am juróom benn fukki at ak juróom boo amuloon liggéey boo la jox retraite dinañ la utal loo xamante ni moom ngay suturloo sa giiru dund juróomi at yi di ñëw nag yéene bi ñu am moom mooy li ëpp ci alalu réew mi ñu jëmale ko ci nit ñi lépp lu jëm ci wàllu njëg danañu fexe lañ ci def donte bari na dinañ ko yokk ba doomu Sénégal bu nekk wala képp kuy dund ci réew mi sa dundin gën a yomb gën a neex